doom bu ko yent yàlla foofu la yaroo ca buur ba di sol yére doomu buur dund dundu buur ba màgg ragalat ragal na mi ngi woote ci mbaax yiw ak gun jaamu ko dul yàlla ba njabootam daje keneen mu jam jëflante ak ñoom bakken root ca Moussa di daw dem ca Madiana ca yonent yàlla Suayb foofu noona fale nag Firawna ni ah, nam kii ni ko ah yàlla soo bi ni ko mucc nga mu nekk fa moom liggéey fa juróom-ñetti at jàpp fukki at ba génn yàlla yónni ko mu dem ñëw war a jàkkaloog Firawna war koo dugalaat ci diine war koo waar ci ndigalu yàlla Firawna wan ko ginnaaw ñoo la yar mënoo ñoo waar mënoo mënoo wax lu bare bari commencé nag di ko dal ci kaw nitam di leen fitnaal ba Moussa mu daw génn dem Firawna topp ko ak mbooloom Moussa dem ba dëgmal géej ga Firawna topp ko rek bañ koo bàyyi ba Moussa rëcc yàlla la bal Firawna moo tax jotaayu ba mujj bi incha allah di ngeen ci gis it Haamaan alkuna Firawna dee na Haamaan alkuna léegi danañu xam nag lan moo ci des njabootu Moussa googu fan lañ mujj ndax dañuy des seen pas-pas seen ngëm-ngëm ànd ak Moussa ndax ginnaaw ay at bi ñu dundee ci ay misère ay jafe-jafe ñu ngi ñaan ngeen ñaanal ñu gis nga mi ngi noonu day mel da leen indilaat lenn ci alkaande gi yàlla alagoon kii di xam lu ma dégg nga wax ko ndax ak ngeen ca place ba fi nga xam ne ñaari soldaare fa lañ dajewoon ndax gis ngeen fa armée ba mujjee kenn ngeen kenn muccul ñëpp a dee ndax gis ngeen yaramu firaaw na mu bokk ca lab loolu gis ngeen ko ci jotaay bi passé ajal ya na tontuma aha kay noonu nga ko waxee noonu la de Firawna na de ak ku na de lam na xalaa arsu Misr kon boog Firawna dee na ni yëg leen ko yéen ñëpp ah Misra ga wéet na la moo tax yéen leen aw yaramam la moo tax andiwu leen ab kooram demal ci sama ki topp ci man muy mara bi taax nga bokk xibaar bi ñu barkat yépp nañu nañu wàcc nañu ànd ak soldaar yi nañu dugal firawna ci dëkk bi bu ko defee ñu defar ko nag ah taxawal nag dëj bi nag denc ko nag denc ko gi ñuy war a denc buur denc gi nga xam moom la yore denc yàlla ji taawal ما يشغلني عن الناس ma wër nag man kon musiba wàcc na ci man léegi nag dootuma soxla kenn ci nit ñi kon nañu tëj sama bunt ba ma pare samay ñaan yi may ñaan ak tànnloo gi may tànnloo sama yàlla ci man ngaa dem cëy seen lii la ko Firawna dénkoon ni ko bu ko tijji lu dul ci mbooloo rut rawatina ñi encensé kilifa yi ma jege ñu bokk ci famille bi ñooñu donc boo ko tijji na ko tijji dénkaanam laa ngi ni moom Firawna léegi dara ñoratuma alal soxlaatuma ko soxlaam soxlaaluma alalam soxlaatuma ay ndàmmam ooram soxlaatuma ko ndénkaan lii moom ma dénk mu tedd di moom dong moom a ñor est-ce que loolu dëgg la xam naa kon fan la jëm fa trésor fa firaw na denc fa firaw nay denc la jëm de fi nag kenn daaw fi dugg te firaw ne neewoon na ko kees gii ma la jox secret yi état ci la nekk secret fin bi ci la nekk seen ak secret buur yi fi jaar ci la nekk bu ko tijji lu dul ci kanam mbooloo nga koy tijji waaye est def wala mu yëglu def na léegi nag ma xool bërëb fi nekk nag seet tet tet ilumu oor ay oor waay ay oor waay ay waay jamaa ngi nii waay jawhar muy jamaa cay ay waay am naa or waay yaakaar naa ne day dana jariñu waaye daa mel ni buntu baa ngay tëju de buntu ba tëju na de dañoo tëj bi ku tëj bi ah! ana xamaan amoon yàlla ji ana sa jaam bi sobe ma bu kenn du ko dégg allah cay prison bi mooy prison dëgg na kon kon mi ngi jot wàllam moom tamit daa mel moom xaamaan mi ngi jot wàllam de maa ngi bëgg a dee daa mel xoj <laughs> ah am na ku ko feeñu de raw xam ngeen ne dafa lab waaye feeñu na ko de ndeysaan lan la koy wax hal aghlaqta al baaba ndax yaa tëj bunt bi idan kon boog laqad ughliqa alayka tëj nañ la ba àddunay tukki dootoo dootoo génn fi yow <laughs> déet waay laa tuxaar. bul jéem a tijji bunt bi mënta tijjeeku. yow Haamaan mënta tijjeeku. yaa Haamaan. yow Haamaan déglul ma wax la. aw kunta aminan saadiqan. boo doon ku wóor. ku ma ku dëggu. yaa nani katabtu fi wasiyati. ndax. ndénkaan loolu ma la dénk dama caa bindoon ni bu ko dindi mukk bu dindi samay mbàndam lu dul ni am mbooloo fekk ci ñi nga xam ne ñoo ñoo war a donn nguur gi su fekkoon yaa ngi ñoo ma nga ànd ak ministre bi sax wala ngarñee yi ñi may gàddu kon di nga bàyyi sa ginnaaw koo xam ne dana ko mos a ubbi kon lii kenn ko waaye yow workat nga xelkat nga bul wax loolu kon nag lan tajru ala duxuli hada almakan kenn mënu fee dugg nag illa wa ana mayit loolu man dama jaar kenn daaw fi dugg kenn mësu fee ñemee dugg man la maa nag maa fàtt léegi di nga xam nan nga ma dugale man buur bu toll ni man nga dugal ma ci musiba ba mu dee ci kanamu am mbooloo moo xamee ni ñu tuuti lañ ay jaam lañ ma dee ci seen kanam deegu bon képp yaa ma ci dugal yaa ma doon yedd di ma xeebal su ma bëggee rey Moussa rek nga teg ma di ndax sama ragal xam dama ragaloon musa mu musiba wàcc xaarum dal ci kaw waaye yow danga doon may ñun ñimeeloo rek Moussa yàlla Moussa ku man la li muy def waaye ngëm gi nag moom man daal daan naa ko bëgg a gëm daan na ma wëlbati sama réy moo ma teree gëm ba dee dund naa ba dee ca gëmu ma te waroon naa gëm Moussa kana hatman alayya an urawida Moussa loolu tax ma bëggoon a dal léegi nag la ma duggoon yëpp di nga di nga ci dugg yow aman day wuyu kat li alak xaaroon alak ko ak alal suufam man moo ma rey moo ma labloo وهو الذي يميتك وشيكا yow tamit moo lay delloo nga boyetu or yeeg yëpp ak birig na dal sa kaw lii nag dañ ko bind organisé ko loolu tax nag la koy firndeel mooy bâtiment bi sa kaw lay daanu ndax yaa may dégg de déedéet xamandu déedéet waa mu diggante bu gàtt nag soo di soo jàngatee samay samay leeral soo ko jàngatee ci ngay doog a dee xaw rek batimaan mabbu sa ko ba nga jàngat li ma lay wax la ma la wax yëpp di ko jàngat tey nga doog a dee lu mu dégg rek da yaakaar lu koy génn lu koy génn la ana nga yow mi doon wax ak man waxal ak man maa ngi ni tekk foo nekk cey ana fu may jaar ba génn mbir yaa ngi wàcc waaye day fàttaliku lépp lu mus a def ci lu lépp lu mus def rek dana ba muy fitnaal jabaru firawna oh muy teg dil firawna ay ci suufu état dañuy naxante rek naxaate rek ànd ak wala ànd ak ko nax rek dil rek yàlla ci yàlla musal mbokk gis ngeen xaamaa noonu xaamaa na ngi noonu def ci lu bon lépp lu mos a def ànd ceeg Firawna kompaloo ko yàlla ko koy wan mi noonu ngeen ko siiw moo tax nit ki gënne buy nekk ci lu bon ba àdduna di dee ba dikkal ko sukuraat dikkal lépp lu mos def ci lu daf koy fàttali ko xamaa ne ngi noonu ngeen gis mi ngi alku waaye lépp lu mos a def ci lu rek mi ngi koy fàttali ko mu mel ni tey la Firawna feeñu na ko nee na ko mbir maa ngi noonu ah bi dana ma dana sa kaw waaye la ma la ma doon dugaloon ñëpp ba ma di ko topp aku nitam ba yàlla alag ma rey ma ci kanamu mbooloo loolu tey la alagoon si ah, ki nga xam ne mooy xaaroon yàlla mabbu suuf ci kawam ca alag ma ma dee ci ndox mi tey loolu moo lay alag nga dee ci suuf bâtiment bi or bi nga doon xëccoo ak jamaay yépp sa kaw lay daanu waaye di nga fàttaliku lépp loo musa def kon gis nga xaaroon xaamaan a ngi noonu waaye nit yi Moussa yaa ngi noonu yàlla muccal na leen kon yàlla alag na Firawna alag na ñi mu àndaloon état ba daanu na mu ngi noonu léegi nag njiitu Moussa mucc nañ ña nga nee na ci géej gi di sant yàlla ña ngay bàkk yàlla ña ngay kañ yàlla ñi ngi naan yow yàlla day ñu ngi lay bàkk ñi ngi lay kañ yow mi nga xam ni yow yaa yàlla ju màgg ji yow mi nga xam ni yow yaa yàlla ju tedd ji say kéemtaan yàlla gën naa yaatu gën naa fés waaye gis ngeen kalim Moussa yi noonu ñi ngi jàkkaarloog Firawna na mu alagee na mu alkoo ca ndox ma jëmm ja géej ga bëggatu ko sànni na ko ci bit ndax ku yàlla gedd lépp yàlla dalay gedd ci géej kenn la ci kéemtaan yàlla yi kenn la ci euh, ki nga xam ni mooy jaamu yàlla yi ndeysaan nee na lépp lu tool yaag pale yaag alal jaag lépp nërmeelu na lépp daanu yàlla yow mu nga ñu ñun yàlla yow yàlla cooy sànn mbokk yi ya ah non dégg nga wàcc ca noonu ya ñii di war ci kaw fas daanu dee ñii war ci kaw sareet ya daanu dee nit ñay daanu ci diggante duusi géej ya di nërmeelu firawna it alkuna dee na ni ñëpp waaye dégg day wommat na firawna sànni ko ca biti firawna mujj na ci alkaane mujj na ci waaye mbokk yi nit Musaa yi ña Ah, diir Firawna gaañu na lu yàgg nag léegi ah, génn nañ ca jaamu gañ nekkoon ay jaam léegi nag ñi ngi commencé dund dund neex day mel ni ñi ngi bëgg a fàtte nag waaw ñi ngi bëgg a fàtte ña ngay commencé nag di saata gaay ñenn ca ñoom waaw te mooy bu mbas amee rek musiba am ñëpp dellu ci yàlla bu yàlla yëkkatee mbas ba nekk di musiba ba dund commencé neex xéewali commencé ñëw ah ñu daal di fàtte yàlla commencé demaat ci àdduna waaye ndax yonent yàlla Moussa dana leen ca bàyyi jigéen ñaa ngi noonu gis ngeen di woy kon gis nga ñu ngi noonu di way rek yi nag saatagaay la loolu moom ñu baree koy def kon daanaka xew-xew yi amoon jamono ji ci wàllu coronavirus bi gis ngeen ñu bëri tënku nekk ay jurit ñi daawul juri sax commencé juri ndax tiit ak musiba waaye gis nga di ah bu yàlla commencé teggi rek da si nit ñi moom dañuy daal di beew nag commencé delluwaat ci bëgg àdduna commencé delluwaat ci caatagaay waaye ndax nañ leen ci bàyyi Moussa ñëw na nag pour wax ak ñoom gis nga ñële ñoom affaire bi neex na de tuskare ñeel na leen ñu pecc ma lañ seetaani woon atatrukuuna salaata xalfa Muusa ndax da ngeen di bàyyee jaam julli ci ginnaaw Muusa di topp ñi nga xam ne àddunaa leen tax a jóg tus kare ñeel na leen ndax da ngeen a bàyyi jullit toroxlu gi jënde ko ak fecc ak yooyu dem leen ci yonent ba waay ngeen bàyyi seen caaxaan yi tàmbali tur yàlla mi yërëm jaam yi at nag àllaxira yaa bani Israa'iila ee eh, yéen war bani Israa'iil fàttaliku leen xéewal yi ma leen defal xéewal yi ma leen dottil man ma dem ba gënal leen ci àdduna bépp ndax jaar ndax jéggi jéggi géej gi moom lañ gënal ci àdduna bi yàlla xanaa mu ci leen Firawna ca mooy gën a buur bi gënoon a màgg ci àdduna xool leen da ngeen ne nekkoon ni toroxlu nan la leen yàlla dimbalee toroxal Firawna yàlla muccal leen labal Firawna àgguwul kenn yàlla da koo gis ci yàlla daa gis ci ñun lu gisul ci yàlla ràññee ci ci ñoom ya bani israil e yéen waa banu israil wattaqu yawman ragal leen bis bi nga xam ni benn bakken du fa fay beneen bakken dara kenn du fa nangu ak tinu kenn du fa jël ak maanu kenn du fa dimbali kenn fàttali leen bis boobu ndax bu ñu deewee dañuy dekkalaat ndax yéen gëm ngeen loolu yéen <laughs> dekki dekki est-ce que am na. baasun baada al-mawt. dekki ginnaaw dee. ah mën nañu ko gëm de. yutilu llahu ayyamahu ala al-ard. ah ku ay rafetal yàlla da lay may fanu gudd. dara du la laal doo dee sax. kon kay bu dund bu gudd kay mooy li nit ki soxla lool kay moo am solo de. ba fàtte ko yéen waa bani Israël bañ leen muccalee ci Firawna. yasumunakum suu ñu leen di teg ay natt yu yu ñaaw ñuy rey seeni jigéen ñi di dundal seeni góor ñi rey seeni góor dundal seeni jigéen loolu am nattu la woon bu mag a mag gu leen firaw na tegoon yàlla muccal leen ci cey fàttaliku leen loolu fàttaliku leen it ba ñu xaree géej ga mu ñu muccal leen firaw na lab ñu labal firaw na ak njabootu ca yéen boobu yéen a ngi jàkkaarloo Firawna di gis muy lab allahu akbar tët tët tët gis ngeen ñële ñoom ña ngay jaamu seeni xërëm ñoom <laughs> tët gis nga waa banu Israël yàlla nee naa li ëpp ci alquran maa ngi nettali seeni jaar jaar waaye gis nga fu leen yàlla muccëre rek ñu nekk di jaamu ay xërëm <laughs> انظروا اجتماعهم حول أصنامهم xool leen gars yi nañ dajaloo ci yàlla gi. طقوس تجمع وجدان القوم وتوحد قلوبهم day dajale nit ñi di dundal seen fan. yow Moussa. yaa Moussa. waaw yow Moussa nag yow tamit. waaye wutal ñu yàlla comme ni suñu gars yi amee yàlla ñu ngi noos ñoom. ah. gars yi ngi fàtte de. allahu akbar. yaa qawm. yéen sama nit. يا أصحاب موسى يني ينتي موسى إن رسولكم يأمركم بالرحيل عن هذا المكان موسى نينا ngeen jóge fii neena ngeen mi ngi leen wax ni ñi ay yéefar lañ seen mbir ca alkaane lay mujj wa kullu ma tarawna min sani'in lu ngeen gis ñu koy def ci lu bon rek atakfuruna billah ndax yéen da ngeen bëgg a weddi yàlla ca ba tey suuf gañ labaloon firawna mi seen tànk xanaa dégg leen yonent bi wax dem leen wuy ji yonent bi xanaa ñii seen i jur bu ñu leen yéen ñii dañoo réer bu ñu def bu leen ko def ñu ngi jéggalu ci nit ñi ñii dañoo dañoo bees ci diine nag bàyyi ko xel nag bàyyi ko xel ñi jaamu xëy mi doon jaamu day daal si ñoom dama ni dugg ci njaamu dafa nekk seen xool rek dem leen jóge leen fii. ñu tàmbalee tur yàlla mi yërëm jaam ñi ànd ak àllaaxira ñu jéggil waa banu Israayil géej ga muccal leen. ñu ñëw ñu ñëw ci aw nit fekk ñuy jaamu ay xërëm nag ba ñu jéggee géej gi ñu ñëw fekk ñuy jaamu ay xërëm ñu ne Moussa ñi ni ñuy jaamoo seen yàlla yi tee nga ñoo wutal yàlla comme ni ñuy amee yàlla Moussa ni leen yéen da ngeen a réer de yéen jaamu xërëm ñii ak alkaade ci lañ nekk lii ñu nekk ay neen la du dara ndax da ngeen di sàkku jeneen yàlla judul yàlla di ko jaamu ca yàlla mooy birom borom àdduna bi allahu akbar kon lool la leen Moussa wax jéggi nañu rek gis ñu jaamu xaram ñu ne nañ yàlla kon ñuy ay seen ja yàlla la ñuy jaamu kon ya Moussa wutal ñu yàlla comme ñi amee yàlla waaye nges nii ña nga ca euh, àll ba ànd ak yonent yàlla Moussa léegi orientation yi moo leen dese jib yoon yi leen Moussa teg yow Moussa ndox ndox mi jeena ñi ngi bëgg a dégg mar yaa ñu génn ci àll bi yow da ñoo bëgg a suul ci suuf si ay waay Moussa ñun ñu ngi bëgg a dégg mar ñun xamuñu lii de kon ñu ba tey mooy asxaabu doxful iman yow Haamuun ñun dañoo toogal misra ñuy lekk mburu ba duñu xiif ngeen génn nañu fii pour xiifal ñu cay صعدتمانا من مصر loolu moo tax ngeen لكي نموت نحن وأولادنا ومواشينا عطشا ndax da ngaa bëgg a rey suñu doom yi ak suñu jur gi ci ci mar yéen samaw nit إن موسى قد توجه إلى الله موسى jublu na ci yàlla di ko ñaan يديه ضارعا يستسقي yëkkati na loxoom yaa di toroxlu ci kanam yàlla di ko ñaan ngir may leen ndox di ngeen bëgg leen léegi ndox léegi ñaan ngeen ndox Moussa xooleen Moussa tuskare ñeel na lu muy def nii moom Moussa Moussa daa mel ni daa ji leer ba jëm ca jëm ca montagne ba di di dóor ca montagne itajaha ila saxra ba kii ca montagne ba la jëm daa mel ni yet wala cay dóor de lu xew yàlla moo ko digal mu dóor yan wi ci xeer wi ci montagne ba allahu akbar montagne ba commencé génn nag ay bëti ndox mu nekk fukki bëti ndox ak ñaar te ñoom fukki famille ak ñaar léegi nag mooy bëtu ndox bu nekk ubbeeku comme robinet